société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse tali nag jàmm ñu ànd xëy yér kaay ñu xëyandoo yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibara naan ñu ba léegi ci réew mi ñoo ngi laam-laamee Macky Sall kan mooy candidat am 2024 wala moom Macky dafay samp ndëndam en tout cas li am ba des bi nee bu dee am na kenn koo xam ne mooy candidat Macky Sall ci xol Abdoulaye Daouda Diallo la moom ministre bi nga am ci xolam moom Abdoulaye Daouda Diallo mooy homme de confiance Macky Sall te nag bu ñu xoolee nag ñaar fukki at yi nga xam ne moom la ñu génn Abdoulaye Daouda Diallo bokk na ci ministre des finances yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci réew mi yéen kaay gi nee na Abdoulaye Daouda li tax Macky Sall ko teg ko ci wetam loolee Macky xam na ko bu baax a baax ndax càmbar na ko ndax ministre bi ñu dénk wàllu finance ku discret la boole ci tamit ku efficace a présenté wa ndax bu ñu jiitalee Abdoulaye Daouda Diallo ku jéem xam ne ñoo nekk ci biir dinañu ko yombal mbir mi loolee ab laaj la ma ngi ci biir journal bi di réew mi quotidien yéene kaay gi de la Soleil bàyyi mbir moomee wax ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu génn journal bi nee na conseil constitutionnel la ñoom nag génn nañu résultat définitif yi dañoo daal di dëggal dañoo confirmer résultat yi nga xam ne moom la commission de recensement des votes génn woon l'observateur nee na ñi nga xam ne ñooy waa conseil constitutionnel la dàq nañ nag recours bi nga ñoom la ñu dénkoon ñu recenser vote yi coalition Yewwi Wallu am nañu 80 députés Pape Djibril Fall benn député Thierno Alassane Sall benn député Pape Diop benn député loolee la conseil constitutionnel dëggalaat yéen a kaay gi di la témoin ñu koy fekk fa Serigne Saliou Guèye nee na Aminata Touré le cheval perdant de Macky Sall Aminata Touré moo perdloo Macky Sall élection yi ndax da koo jigul la yéen a kaay di Rewmi Quotidien nee na Pape Bokk Gis Gis moom nag may na Macky Sall majorité Pape Diop démb gi janoon ak taskatu xabaar yi moom Pape Diop nee na fekki na Macky maanaam diisoo wu si ak Macky Sall ndax dafa gis na moom Pape Diop cohabitation baaxul ci réew mi nee na crise institutionnelle la loolee lay dawal réewum Sénégal ndax dafa gis na réew mi ay xale ñoo bëgg a téye réew mi jàpp ko sa ñi nekk seen i di saaga yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na Pape Diop jox na Macky Sall ba pare nag attaqué ñi nga xam ne ñooy opposition bi démb ba xolam sedd yéen kaay gi di la soleil nee na Pape Diop daan fa Mamadou Sy Albert politique nee na Pape Diop daat nay signé mort politique ama Pape Diop fi mu ne nii dee na wett ci lu jëm ci wàllum politique Mamadou Sy Albert di analyste politique moo ko xamle yéen a kaay gi de la témoin nee na gars yi ñoo fi nekk di wax rek waaye Pape Diop mënutoon a gàntal Macky Sall mënutoon a wax déet Macky Sall yéen a kaay gi de la Quotidien nee na Pape Diop mooy ki Macky Sall njëkk a recruté ci député yi yéen a kaay gi di Sud ñu koy fekk fa Pape Diop réew mi moom Pape Diop nee moo tax mu dem fekki Macky ak ñoom ndax dafa am loo xam ne moo ko war ci réew mi du bàyyi réew mi di yàqu yéen a kaay gii di Vox Populi ñu koy fekk fa Moussa Diaw professeur Gaston Berger nee na nag Pape Diop mii su waxee ne maanaam amul yenn condition waxtaanu ci ak Macky ak waa benn bokk yaakaar loolee amul am nay condition yoo xam ne moom la ñu tegal Pape Diop te nag jamono ji Ousmane Sonko am na dëgg ci kaw Pape Diop Ousmane Sonko am na dëgg ci kaw Pape Diop kaddu yi professeur Moussa Diaw la yéen a kaay gii di Source A moom professeur Moussa Diaw nee na Pape Diop lii nga xamante ni wax na ko naan xaw ma cohabitation xaw ma baaxul ci réew mi xaw ma ay xale ñoo nekk seen xaw ma ginnaaw clavier loolee ay waxi kasaw kasaw la du waxi dara te nag Pape Diop mi nga xamante ni fekkee ne benn bokk yaakaar maanaam li muy soppi ci assemblée nationale du bëri yéen a kaay gii di l'info moom Pape Diop su fi nekkee nag di wax ne amul benn déggoo boo xam ne déggoowuma ko ak régime bi déggoowuma ko ak Macky Sall da koo dem daal fekki ko noonu sans condition maanaam du ñàkk gouvernement bi membre coalition bokk gis-gis wala ci biir partem bokk ci gouvernement gouvernement bi wala ñu bokk ci yenn institution lu ci mel ni au conseil des collectivités territoriales te nag li si kanam rawuti bët yéen i kaay gi di lay mbir moomee wax ci concours général bi édition 2022 démb la woon Macky Sall wax na ci réseaux sociaux yi waaye tamit yedd na étudiants yi wax na nee na yi nga xam ne ñoo gën xarañ Sénégal nañ leen bàyyi di leen jël di yóbbu ca bitim réew yéen i kaay gi di la quotidien